bii ñu ne dafa am loo xam ne fii lañ ko fase woon ci saal bi te foofu la ñu bëgg a dinañu waxtaan ci ñetti pàcc bu ci njëkk mooy li nga xam ne xew na ci biir yi ba tax ñenn ci kilifa Yewwi yi génn am lu ñu taxawee am lu ñu wax ñaareel bi mooy li xew ci dépôt yi ci boppam ñetteel bi nag te moo ñu ëppal yitte ñun mooy li nga xam ne moom la ñuy dëgmal ndax ci Sall faaw ñu jàmmarloog moom loolu mënul ñàkk loolu moo ñu gën a yitteel fi mu toll bi don pàcc bu njëkk bi dama bëgg a fàttali nit ñi nii fàttali ko sama bopp fàttali ko képp koy leader te bokk ci Yewwi Askan Wi waaye fàttali ko askan wi su dee jar na ko sax ndax dafa mel ni askan wi daf ñoo jiitu ñun ci li nga xam ne mooy mbébét ak projet Yewwi Askan Wi waaye damay fàttali damay joxe benn mandarga liste yi ñu fi annulé bëri na. Nous ay liste département. liste département Nous liste nationale lépp ñu annulé ko pourtant nous avons dit. Nous de ñu une liste sur 53 voilà 54 qui ci la liste nationale D'autres listes liste bu am solo la liste la mag Macky bu bëgg a nax saa yal coow li ne gàññ gàññ gàññ loolu day firnde benn mbir mooy fi yeewu askan wi tollu réew mi yaakaar bi askan bi am ci yeewu askan wi yaakaar boobu nag ku woote boppam leader te nekk ci yeewu askan waroo ko fàtte parce que dafa mel ni bu boobaa xamoo lan moo ñu tax a jóg dama koy wax ci sama bopp wax ko ci képp kuy leader yeewi askan bi ndax yéen yeewi askan dafa am fu mu jaar ba judd ba taxaw ba nekk fii kon képp kuy leader ci yeewi askan ak lu la mën a naqari dafa am fu muy toll su dee fàtte nga askan bi su dee fàtte nga askan bi xa xama xama xamoo lan moo la andi woon ci yeewi askan parce que wax naa ko ñaata liste lañ fi annulé ñëpp ñoo xam ne dañ leen ne du ngeen participer du tout ci élection bi ñun dañu ne ci benn département ngeen duñ participer waaye semaine ngi nii réew mi dafa taxaw ngir loolu gëm naa ni bu doon Benno Bokk Yaakaar la coow li du toll nii kon loolu firnde la ñun askan wi dese dara te am na lu muy xaar ci ñun mooy ñu mën a fàtte suñu bopp tuuti waaye man la rek man la nañ ma fal su dul man réew mi def naa béykat bi loolu la waxoon loolu dafa rafetul nañu waxante dëgg su ma defee précision boobu la dinaa wax ni saal bii lañu ñu daje gën saa gudd def naa war na def quinze jours ci gannaaw ñu réunion ñu ne léegi dañu war tabb biñu ñu waxtaanee Cheikh Tidiane waaye wax fàttali na ko léegi dañu ne woon nañu fexe ba 70 pour cent des leaders nañu dem ci département yi parce que élection bi ci département yi la du ci liste nationale. li gën a yomb ci élection législative mooy nga ne maa ngi làqatu ci liste nationale danañ ma fexe ba def ma place bu may nekkee député waaye élection bii ci liste nationale ci liste départementale yi lañ koy gagné bañ na ba moom. bi ñu demee ba coow am ci naka lañuy ñuy def ba joxe sept députés yi ñu war a mottali bi coow li amee dafa dem jël ay député ci liste nationale yóbbu ko ci liste départementale parce que foofu la enjeu bi te mu leer ni moom li mu am ci ay kàngam lay tabb ci liste ci département yi ba pare sàq xaalisu réew mi ay milliards jox leen dem leen ngeen gàññe ci kon ñun bu dee ay leader lañu am ay leader kii ne man maa ngi dëkk département sangam kii ne maa ngi dëkk département sangam même soo gañewul sax mais leader bu nekk war na am sañ-sañu peesewu moo gën nekk rek ci liste nationale tey ak nu mun ci demee jàpp nañ ni leader bu peesewu ci département am li mu mun a am foofu amaana koo xam ne amul kariru leader mënu ko faam ñu ne

est-ce que du maître Moussa Diop en tout cas il y a tout mu tuuti tuuti yu ne moom ñoom dinañ dem seen département ñeneen ñëpp ne liste nationale ci loo xam ne 30 pour 53 postes ci liste nationale bu dee 25 góor lañu boo dugalee parité ñoom rek ma 50 dem na te ñëpp xam nañu liste nationale nag kenn mënu fa am 50 du Benno du du Yewwi du kenn ko mën a am 50 ci liste nationale à moins que nga gagné à 90

mu am euh, MRDS beaucoup ne d'accord partiellement d'accord nous ñu jox ici mais su il fukoy andi wa fi ñu bu d'accord bu discuter Khalifa Sall ne confiance day mat wala du mat ma

wu la yaakaaru kenn bu nekk parce que nag ala kulli xaal mënoo fi woon fexe ba def liste bu bu kontaanloo ñëpp mënul nekk te loolu ñëpp xaaral ba léegi ba investiture yi génn ci ñeneen xam nga ñëpp a ngi nëbbu seen investiture man de fi ma toog nii gisaguma suñuy liste départementale defe naa Cheikh Tidiane gisagu ko liste nationale bi ko gars yi fuiteloo mu génn. ci laa woo Déthié Fall ne ko je veux voir la liste nationale ba xam ndax lii ma gis nii ak li ñu jàllale ci biti benn ba ba benn bi la gisaguma liste départementale waaye liste yi bu génni gisuma fan la coow di mucc peut-être ñoo xam ne ñoom amuñu problème mu dañuy wër sax ay nit ñuy dugal ñooñu duñu am problème boobu mais ku fi am coalition bu mag bu liste yi génnee coow li ne gañ

beaucoup d'admiration la am ci moom intellectuellement waaye waru nek ci liste bi ndax biñu démé élection locale dafa né d'accord ak ñun parce que investir ñuko mu génn daal di ngemb dem ci benen liste kon li yéwi am tay du ñàkkam mënu dellu ci duggal ko ci liste bi bàyyi ñi fi newoon direy seen bopp ñu sànni leen feulé ci ci àll kon waru nekk sax ci liste bi ensuite ñi fi nekkoon di sonn parce que tamit dañuy waxante deug Cheikh Tidiane wax na ko légui gis nga investiture bu jafe parce que bëgg nañ ko dégg bëgguñu ko dégg coalition bu né dafa am parti yo xamné yalla mo dogal ni ñooñu ñoo ëpp doole bu mobiliser joté ñom ñoo mëna mobiliser bu dem tok ci l'ensemble des bureaux de vote joté ñom ñoo mëna a am l'appareil politique bu tok ci bureau de vote bu génne xaalis des gens, ñooy ont des bu campagne jotee ñooy mëne campagne bi kon dafay on des tam bu desee lu def ay investiture ñu faire ba ont militant bañ décourager. ont muy lu jafe ont n'y a gis rien des xew ci élection locale na des ne nañ ko gagné mais on l'a perdu parce qu'on a voulu faire des équilibres militants yi ne la d'accord ma ci parce que qui, xamuñu ko mosuñu ko gis fi ngeen xeyna ñun ngeen di teg mais on a fait des des efforts parce que and bu ne di nga essayer xam xool loo bàyyi kon parti yi nga xam tay ñoy tirer la coalition parce que c'est ça lool nak yalla ko def bu ñuy def investiture dañ leen wara a sédd dañ leen wara jox lo xam dina mëna sax tax ñu layoon ba appareil bi top momit parce que appareil bi su top duñu ñu xam dara tous duñ ko am loolu jaadu na on dit que telle telle personne n'est même pas leader on l'a placé avant tel ou tel autre c'est c'est ben appareil la bokk bo xamné rôle bi muy joué ci bir mbir mi c'est un rôle central pour ñu nous am résultat bi ñu bëgg te malgré tout nous am lu ñu bëgg mukk parce que kenn ku ne ci ñun say partenaire ñu bëgg tas

moy andi yu beure beure choses, ko après mais comment trouver le juste équilibre un exercice bu faire, jafé donc ñu waron def investir ci base bobu benen mandarga ma man dama ni buñu génné ci lool nañu xol ay parce que gis nga mbolo moy ku vivre lu vivre mois de mars février mars année année année 2021. mille vingt et un Sénégal ñu jógaloon taxaw lan la euh, euh, honorable Aïda Mbodj joué ci affaire bi lan la Mamba Guirassy joué ci affaire bi lan la euh, Cheikh Bamba Dièye joué ci affaire bi lan la Dame Mbodj joué ci affaire bi pendant ce temps amoon na ay leader de mon parti yo xamné ñëmetu ñu won sax jël sen téléphone nee nañ ils étaient sur écoute demul fuñu gas sulu. kon am dañ ci nga soxla pour fi li fi coalition et il faut trouver le dosage qu'il faut le dosage parfait n'existe pas té du exister mais su dee def nañu lool man japp naa peut-être yoruñu appareil yu rëy rëy yoruñu parti yu rëy mais man gënuma leen sonn ci ci ci coalition bi bu ba légui ñi fi ci premier rang yi fu ñu mus a fanaan àll ñi nga fa ces gens là mérité ñu xol nu ñuy def ba ñu figurer en bonne place ça n'a pas été le cas pour certains ci ñi ñëw té di bess man japp naa ne ku mel ni Dame Mbodj su taxawoon assemblée mais c'est un beau député te je l'ai défendu et j'ai été surpris de ne pas le voir sur les listes

kon bu ñu génnee ci loolu man dama jàpp ni kenn ku nekk ci ñun kuy leader war nga ànd ak tey ak dal d'accord naa nga exprimer sa frustration dégg naa ñu ne Ousmane Sonko dictateur la dafa génne nit ci ci groupe WhatsApp bi leader bu ne dafa mer amul lu muy def lu dul bind naan l'ancien pensionnaire de Rebeuss voleur de riz et de mil

yenn saa yi sax truc mais ay xaste ak ay saaga xaju fa groupe bi man maa ko créé ku ci wax lu lu noonu dama ko ciy génn je ñu bëgg a wax tous les ñu bëgg a wax tous les leaders tous les leaders nañu delloo ci seen xel askan wi dafa am yaakaar ci Yewwi Askan Wi te yeewi askan wi nag dara mënu koo tere continuer nekk li mu nekk bu soobee yàlla dara bëgg nañu ñekk ñépp ñu dajal leen continuer liggéey gën a yaatal sax mënuñu téye ko bëgg a dem déggaguma ko moom ku ne démissionné na déggaguma ko peut-être am na déggaguma ko mu des nag naka la ñuy waxee nañ ko teg ci yoon nañu toog ñu waxtaan et qu'on laisse de côté les procès d'intention su doon man maa def investiture yi tey coow dina am parce que dina am ñu dul d'accord kenn kuñ ko joxoon ci ñoom coow dina am parce que dina am ñu d'accord kon projet la ñu am nañu continuer liggéey dans le cadre de ce projet moom mooy premier bi ma bëggoon wax ñaareel bi mooy li xew keroog bésu dépôt liste yi man j'étais à Ziguinchor Cheikh Ahmed Tidiane mu nga woon foofa man bi ñu ma woowee vers dix-huit heures yéegal ma ni lundi dix-huit heures yéegal ma ni problème dafa am ci Dakar mbir mi dafa ma bett parce que man jàpp ma ni pour man instant nit ñi génn nañu DG ba ñibbi parce que ku dugg vingt heures ou vingt une heures laa bay ba dix-huit heures le lendemain bi ñu ma wooyee ne ma problème dafa am ci liste Dakar bi man je je n'en reconnais pas Khalifa Ababacar Sall moom ma woo ne ma problème am na ci sept député Dakar yi te li andi problème bi mooy ñun dañoo defoon préparer investiture ba pare bu ñu demee ba ba yeggali dimanche. xam ngeen dimanche le déploiement de dépôt dimanche vers midi là, nous trouvons un accord gars yi signé au premier à waa Nous ñu reprendre l'ensemble prendre des départements lors du liggéey bu ndaw ndakaaru luñ ci des woon mooy ñaari député Nous, ñun dinañ ci am wàllu Sénégal am ci benn bi ñu demee def le travail ci wàllu département bi ñoom nee nañ dañoo jàppoon ni wàllu benn lañ waroon jox boo xam ne jigéen la wàllu ne déedéet comme benn rek ngeen ma jox góor la war a doon loolu moo andi woon blocage bi bi ñu ma woowee wax ma ko man li ma leen njëkk wax mooy jox leen wàllu góor daal di dugal benn jigéen rocc benn góor. ñu avancé parce que wax dëgg yàlla su ñu demee ba ne liste Dakar am na problème ñu naan benn góor ak benn jigéen bu ñu waroon def nii moo ko andi du ñu xam li ñuy wax askan bi donc génne leen benn góor loolu 18 ba 23 heures et quelque ci loolu lañ ñëw ñu ne dama dégg ñu bëri ne xalifa Khalifa Ababacar Sall moo ko def moo ko tey. te dafa bëggoon piéger parce que la bañ mu def lii dara du ci dara du ci dama leen ci wax ay vers vingt bi ma waxee ak Khalifa dama ko Khalifa diggante Babacar Mbeng ak Pala ci kenn nga benn déposé mu ma il faut ma waxtaan ceeg Barthélémy Diaz parce que Barthélémy Diaz tient à avoir ses trois députés ses trois hommes à Dakar 21 une heures ma woowaat ko ne ko est-ce que réglé ngeen ko mu ne ma xaaral ma woo Bart mi ngi woo Bart def ko haut-parleur maa ngi koy dégg bi mu ko waxee Bart daf ko ne mënuñu changer parce que fi ma ko teg mooy dama soxla ñu may jàppale ci campagne bi Dakar il faut ma am ay maire yoo xam ne mën nañu xeex te dinaa mun a ànd ak ñoom ci campagne bi donc su ngeen ma génneelee maire yooyu dinaa am problème pour battre campagne bi ma ne ko Khalifa raccrocher si te plaît mu raccrocher ma ne ko waatal Barth nga dugal ma bi mu woowee Barth dugal ma li ma la fii ni c'est vingt une heures et ma ne ko Barthélémy génne leen benn góor ngeen dugal benn jigéen parce que nous sommes liggéey li ñu liggéey ba egsi nous ñu naan ñu benn goor ak benn ñu et ce n'est la c'est pas une consultation parce que nos leaders c'est des leaders qui décident ici Ce n'est la c'est une décision on va sortir une femme un homme et on va mettre une femme Nous waxtaan waxtaan mu ne d'accord Nous nañu xool léegi moom Khalifa na woo pour wax ko nous arrêté Je suis arrivé ba 22h il n'y a pas d'évolution. j'ai appelé détié Fall Je ne ko non il était à la direction générale des élections mon il il y' a un problème etc. Je passe mon Déthié il me passe Déthié Je ne ko Détier, un homme nga une femme puis dépose la liste parce que tamit nag coalition bi diw moom ko diw diw moom ko faire ça avancer il me dit écoute nañu xaar touti comme nous and fait bu rafet ba fi nañu xol ni ñuy def ak suñu euh, nos amis de taxaw pour bañ mu melni dañu nous sen loxo forcer len def affaire mané ko légui dit « suñu togué ba 23 h 30 minutes wa taxaw dessi qu'est-ce qu'on fait mon je prends mes responsabilités je fais ce que j'ai faire, je dépose ko d'accord non, non, ba Khalifa vers 23 h heures et on a trouvé un accord on va sortir par là et on va mettre Ngoné Ngoné Meng L'ISO qui s'est mort ce c'est pas que nous bëgg mettre nettali affaire BIR, mais dama bëgg ñu lenn moi, les gens de mauvaise foi nga xam ne duñu wax dëgg mukk ak avons ñu def ba ne ak Khalifa Sall wala Ousmane Sonko ak Khalifa Sall dégg naa ci kenn koo xam ne dafa fen fen ba ñuul kukk ngeen jéggal ma ci kàddu gi kilifa yi du mus du mu mus a wax ci àdduna suba ba ngoon jot du dëgg naan sonk a di à Khalifa alebu xam nga mag mu toll noonu nga xam ne tey la dese ci dund eh, li nga dund moo dese la dese dund ngay wax loo xam ne dara bu ci dëgg kon ñooñu laa bëgg Sénégalais yi xam ci problème amu fi rek la du complot du ne Macky Sall moo jënd Massamba wala Mademba amul ci Askan du ne complot pour casser la carrière de l'Esprit rek amu fi c'est de bonne foi Khalifa a tardé à prendre une décision parce que dafa bëggoon waxtaan ak

il n'y a pas de problème entre Khalifa Sall et Barthélémy, avec, entre Ousmane Sonko et Gli. Certes, il y a eu de la négligence humaine. Certes, il y a eu des erreurs et nous les assumons. Mais de là à vouloir Yoko à faire de faire de Amoufi. Et tout ce procès qu'on est en train de faire à Khalifa Sall, il faut que ça s'arrête. C'est faux. Nous ne sommes pas contents qui investiture Ça, c'est autre chose. Mais wax ni dafa jaay liste bi dafa lii dafa laa loolu

kon loolu c'est une erreur humaine Déthié Quel kenn mënu ko remettre en cause en tout cas il a à 500 ma confiance et mes remerciements parce que nag nit ñi xaar ñu erreur am ku nekk di wax waaye suis Fall moo yoroon suñu suñu suñu élection locale yi vous 70 listes yoo xam ne daw na suba avocat yi bi sous préfet ak préfet ak ñoom ñëpp def seen gàngoor boobu di yàq suñu suñu kii suñu liste yi kooku mënuñu xëy tey depuis combien de temps la nelawul siège am lay fanaan ànd ak informaticien depuis parrainage ba ñuy déposé liste yi ba ni may wax ak yéen ma nga avocat yi ñuy préparer des recours les gens sont tranquillement dans leur salon taal seen truc yàkkamtuñu lu dul erreur bu ndaw am ñu loo mës a def ci àdduna baaxatu faut qu'on arrête ça d'accord erreur amna, négligence amna, peut-être même euh, naïveté amna. mais alors, il am dal ça ne remet absolument pas en cause ni l'intégrité ni l'engagement ni la probité ni la détermination des gens et ils ont besoin du soutien de l'ensemble de la coalition et de tous les Sénégalais parce que pièce indispensable c'est la euh, coalition je dirais la même chose pour Saliou Sarr et ce qui est déplorable c'est que nous du nous ku nekk di parce que nous ñëpp demandé woon nañ Je man woo naa Saliou Sarr wax ak moom ba mu ne ma may à la le lendemain on a fait la même chose avec Déthié ça on le déplore mais il ay nit la loolu ça. na am Saliou depuis les locales de léegi investiture locale il a passé au moins une semaine pour amener nuit blanche nous avons def siège pour les investitures je ne remettrai jamais en cause l'intégrité et la probité de ces gens-là mais les est-ce pour autant qu'on a perdu notre liste absolument pas Faut que nous wax ak Sénégalais Nous sommes loolu Les ñu intéressé l'erreur humaine pas passé na mais comme sauf une seule disposition de la constitution ou de la loi électorale avant le début des contrôles des contrôles juridiques que kenn mënul ñëw rectifier une liste en a pas amul la na ci loi yu nous ya ñu depuis 2001 amul depuis 2021 du moins donc Amoun la direction générale des élections bu nous font ton parce que administration suñu laa jëlee courrier da nga koy jël amo droit ne duma jël courrier même soy instruire après né ko rejeté na depuis quand l'administration vous amène un courrier nga ne ko la L'administration, par essence qui est au service du citoyen citoyen andi courrier nga ne ko jël est ce que est ce que am nga sañ-sañ tay yow dem trésor wala douane wala impôt douane andi sa ben courrier adressé ko directeur général des douanes ñu ne duñ ko duñ ko duñ ko jël dañ koy jël même nous avons tout le temps, même nous koy rejeté mais dañuy jël courrier au nom de quoi commissaire Sarr nous avons du jël du courrier bi voix voie de fait là, déni d'administration et c'est très grave et nous les poursuivrons pour cela parce que c'est très grave ce qu'ils ont fait dem nañu Sénat jël c'est bien le président du Sénat était très gentil mais il n'a qu'à dégager parce qu'amatul mandat il n'a rien à faire 2001 ba léegi euh, rek mais il n'a qu'à dégager donc sur une liste pour Dakar c'est une liste qui est recevable et qui devait être reçue ça la vérité administration problème de ci Sénégal budul le préfet di ministre budul ministre di DG mais il faut que ça s'arrête nous continuer notre liste est recevable et elle sera reçue mais li gëna grave. cette même DG a admis et a reçu et a validé les parrainages de Benno Bokuyaka lan la yoon wax yoon nee na warul dépasser temps bu dépasser benn c'est-à-dire du ma ne benn nit sax bu pare ne waaye benn tànk sax bu débordé dànq nañu liste boobu loolu la yoon wax conseil constitutionnel feddali ko ci lu ñuy wax jurisprudence Gakou tey ñu ne dañuy jël parrainage Benno Bokk Yaakaar te Benno Bokk Yaakaar dafa déposé lu ëpp loolu waaye ñii ñun ñun lan lan moo tax ñu war ñoo yem nag ñun daal ñooy encaissé lu leen neex ñu teg ñu mais jël lu leen neex ñu def ils ils acceptent de recevoir ça moo tax ñoom ñu ngi fële ak avocat yi bind ay recours man gëmuma seen recours yooyu de conseil constitutionnel bi suba nag union des magistrats ñu génn mbër mbër mbër mbër bu ñuy dem di leen ndoggatu ba di filmer seen i audience di seen i seen i audition du ñu génn wax gis nga réew mi suñu moytu administration justice ak Macky Sall ñoo ko nar a ma wax ko ñëpp dégg ko nag parce que doole gi ñuy jaay nit ñi mun nañ ko jënd. ëpp ñu ñu si réew mi de ëpp ñu doole te xam nañ ci dara fit bi ñuy jaay parce que ñi ngi làqatu ci gannaaw alkaati te nañu fexe nag bis bu ñu ñàkkee nguur nañu am ngor ñun nii ñu ñemee taxaw ak ñoom ñoom ñu yor nguur ñor justice yow lépp ñuy xeex ak ñoom. bu fi kenn dem ci sëñ si naan daf maa bëgg a tëj de yëpp yàmbar yooyu amatu fi de ils n'ont qu'à encaisser xëy wër ci rajo yi yi di saaga nit ñi di wax parce que yaa ngi làqatu ci gannaaw alkati yaa ngi làqatu ci gannaaw justice yaa ngi làqatu ci gannaaw Macky Sall loolu yëpp bukkat la ñun nag li ñuy wax dafa leer te li may wax nii Yewwi ak Wallu la concerné parce que sacrifice yi ñu def alliance bi ñu def ak wàllu c'était pas évident c'était pas évident du tout ndax ku fi nek rek xam nga ni ñol ñoll yu am ci diggante yi xawna naa li nga xamne ne nek ay obstacle bëri na waaye bu ñu demee ba def ko dafa fekk dem nañ ba gis ni réew mi moo ñu war a gënal suñu bopp téeméeri yoon te il faut ñu sauver réew mi alliance boobu nag la Macky Sall bi mu ko yéegee defe naa nelawatul lekkatu alliance boobu la foog ni mun na ko gàkkal mun na ko galgal ci lii mu def nii moo tax dama wax ni Yewwi ak Wallu laa waxal ndax Yewwi ak Wallu bu ñu amee seen fulla Macky Sall ci moom bennoo bokk yaakaar xajuñ si ñoom ñoo xam ne pour ñu génne ñetti nit fii foo ñu génne xaalis bu dul jeex ñun bu ñu taxoon fii wootee ndaw yëpp génn bokkuñu sàcc xaalis jënd ay militant génne ay cadre bokkul la koo xam ne tey soo wootee askan wi doyalu la génn buy si la ñaar yooyu bokkuñu bu ñu amee suñu fulla liste Dakar nañ ko dugalaat waaye bu ñu amee suñu fulla Bennoo Bokk Yaakaar warul participer ci élection yi. tool yi loolu la. Bennoo Bokk Yaakaar dafa warul participer keneen ku mu doonoon fii ci coalition bu Sénégal doo participer ci élection yi pourquoi mu Bennoo gis naa ay soi-disant analyste ak Sénégal ñi ko gën a yàq nag xaw ma société civile la ñuy woot seen bopp xaw ma di wër télé yi di wax du noonu suñ leen joxee xaalis rek yor seen làmmiñ di mbër bu ñu wax mukk dëgg. ñu naan ay nañu ut solution nañu tri bu dee dañu war a nañu bàyyi liste Dakar pour mun a justifier ni ñuy bàyyee liste Benno Bokk Yaakaar kon ñi ñu booy bloqué yëpp ci ci naa dañu leen bàyyi ñu ñëw. Mm-hmm. la loi c'est la loi ku mu ku mu doon rek dafa war a dal sa kaw ni muy dalee ñëpp Benno Bokk Yaakaar warul participer ci élection yi su dee nag Sénégal yi li ñu yaakaar ci ñun. ak fi ñu bëgg a jëmee ak ñun am na leen yegg li ma leen wax dafa leer gis nga Macky Sall xamul waxtaan xamul rapport de force la xam xamul leneen il faut li dina ko arrêté ni mu koy defee la koy defee ba mu instruction ba conseil constitutionnel les soi-disant sages bu ñu jógul jël suñu responsabilité jàmmarloog li muy def dina ko def daal assemblée nationale bi daal di préparer troisième mandat loolu moo fi des moo tax wax wàllu Sénégal Yewwi Askan Wi ak l'ensemble du peuple sénégalais parce que nag a du peuple amoon mooy enfin depuis 2012 élection bu jaar yoon dina fi et pour la première fois cohabitation dina am Sénégal comme ça risque de se passer en France loolu la Macky Sall bëgg a loolu du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Cheikh Tidiane Youm du mbirum Massamba ak Mademba mbirum sénégalais yi la sénégalais yi ñoo warul nangu une élection Sénégal sans la liste da Yewwi Askan Wi à Dakar foo gagné barki démb avec euh, ñoom ñoom ñi ngi am xam nga quatre-vingt mille voix yow nga am cent quatre-vingt mille voix ñu bëgg la ko foqati tey ci caaxaan loolu ñu ñoo ko warul nangu kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di daanele ci apporter mon soutien à au footballeur Idrissa Gana Gueye gis nga tubaab yi dañoo foog ni ñun ab mbalit lañu saa suñu jógee ne nos valeurs ñoom rek am valeur ñun amuñu valeur de la ñu xalaatoon bi ñu ñëw fii di ñu coloniser nañu ñëw pour civiliser ñu ba léegi ci loolu lañ nekk Nous ñoy les droits les nations des droits de l'homme ñom ñom des ay valeur tay il faut ñu imposer ñu góor jigen so des valeurs, dëkk né amna ñaari ñu la ci des valeurs, rek am valeur ñun amuñu valeur ba kañ mu def courage la ñun sans distinction de religion nous ñëpp dañ ko ci wara jappal ne serait-ce que parce que nous suñuy woté droit de l'homme moy kenn ku ne respecter ses convictions

et moi, wax il restera le maire de Dakar sur président parce que dès que Macky Sall ah, oh, le maire qui fait pas ça il révoque le premier maire qui de qui révoque il sera révoqué dans les 24 heures parce que moi, nit en sursis sursis lañ pas fi il n'a qu'à révoquer un maire de de que nous avons. merci